zulima azuma azuma urifa urifa ulima ulima غسل غسل غرس غرس فهم فهم فتح فتح bi nii di la ñaari mas ñaari tomb comme ñaari tomb yooyu futiha futiha qutila qutila qubila qubila kusira kusira kushita kushita lumisa lumisa lufita lufita muni'a muni'a muniha منخ نقل نقل ولد la اللهم salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam léegi mbokk yi xaraf nag di leen ko xàmmee bu baax a baax ndax loolu moo leen di permettre gi nga xayma xayma gi ngeen ni ko bindee su ne dafa nekk si mu jënd baat bi mu jokkoo bi nii su nekkee si commencement bi gis nga mu koy ñaar bokk même at. coupon rayon bi expliqué woon nañ ñu koy bindee si leçon yi pass su nekkee si commencement rek mu jot rayon bi tamit moo rayon bi ñoo yem rayon euh, bi su takkoo xaraf su nekkee si fin bi ni ñu koy bindee moo rayon bi li seen différent rayon day am tomb benn tomb si kaw rayon nag du am tomb gis ngeen labi su ne dafa nekk si digg baat bi su ne dafa jokkoo xaraf beneen lim jokkoo tomb bi ak lim jokkoo baat bi ak la su nekkee si mujjantal bi mu jokkoo xaraf su ne dafa takkoo xaraf ngeen koy bindee ñoom ñaar différent loolu dina ko xool baax a baax a baax parce que loolu mooy tax ngeen may gis ngeen siin bi su nekk si digg bi ak siin su nekk si fin bi ñu koy bindee du bokk ñun dañ bàyyi xel xoolal gi nga siin su nekkee si mujjantal taxaw benn xaraf gis ngeen ñu koy bindee nga siin bi lu ñu isa gis ngeen sabi ngeen sabi su nekkee moom doom ak sabi su nekkee si digg léegi siin bi nii ak siin bi am ñetti doom ñoom ñaar ñoo bokk seen niñ koy bindee su nekkee si digg bi ak si ko xaraf ak shin bi am ñetti tomb su nekkee si digg bi ak ñoom ñooy bokk nuñ koy bindee maanaam shin am ñetti tomb am ñetti tomb rek bee du dara loolu mooy différent yooyu yu sew yooyu dinañ si bàyyi xel bu baax a baax dinañ si bàyyi xel bu baax a baax a baax parce jàng jàng ko dañoo bëgg xam ko gis ñoom to bi su nekkee si commencement bi su ne dafa takkoo xaraf lañ koy bindee ak su nekkee si fin su takkoo xaraf lañ koy bindee gis nga ñoom am na différence tuuti mais si bàyyi xel bu baax a baax yéen ñi dafay facile ta loolu mooy tax lépp loolu mën a di koo liir mën koo liiral seen bopp allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain yàlla yàlla yombal lépp def ba ngeen si bëgg ngeen am ko